jëfati ci ànd bi ak seen programme Walf TV Walf FM ni ñu koy amalee talaata bu jot seen émission keppaar gi dellu si tey fas yéene waxtaane nag actualité ndax ñu ngi ci weeru koor wu sell bi yàlla nañ ci yàlla dugal ci jàmm génn ñu ci jàmm ak salaam mu am nag ay di loo xam ni duñ diine la waaye lu fi yàgg la di aada mu dem nag bay bëgg ëppi loxo ñu ko mën ak ñu ko mënul ñëpp di ko jéem moo tax ñu bugg ko waxtaane tey muy suukaru koor ak ni ñu koy jëfandikoo ci biir réew mi li ci diine wax ak dëkkuwaay yi nga xam ni jàmm lañ ci doon bëgg waaye dafa dem ba mel ni na lay gën a jural askan moo tax ñu bëgg ko waxtaane tey di fi dalal Hélène Guèye soxna Xadijatu nuyu nañu la fay euh, mu di yaa islamologue di jàngale tamit di yëngu ci wàllu diine moo tax ñu fas yéene ko fee dalal tey waxtaan euh, ci euh, une heure de temps loo xam ne daal dina soxal askan wi bala ñoo sori ni koy defee saa su ne Fatou Diouf Faye defaloon nañu benn élément Euh, ci waxtaan ak askan wi ñoom it ñu joxe ci seen xalaat ndax saa su de rek noonu la ko programme Walfadjri euh, di bëgg a defee euh, joxe ñëpp koo xam ni fu waay mën a nekk nga joxe sa xalaat ci ponk boo xam ni moom lañ fas yéenee waxtaane léegi ñu continuer tuuti ndax élément bi disponible gul dafa mel ni noppi na ñu teewlu ko ba pare Fatou Diouf Faye ñu wàccaloo ñu ci askan wi laaj soxna yi ak suukaru koor ci yéenee joxe ak naka la ñuy def ba boole seen dërëm ak seen tànk ngir joxe ko seeni i ak seeni xarit xariti jëkkër wala sax seeni goro ñu teewlu Fatou Diouf Faye ba noppi doog a yegg ci laaj ak tontu. suukaru koor dafa nekk pratique boo xamante ne lu am na ci biir Sénégal buñ tàmbalee li di weeru koor bi rek ñenn ci jigéen di tàmbalee am njàkkare ñenn sax dem ba ciy amal ay tontine ngir mën cee génna dañ koy def ba teg suukar. soo demee jox sa goro yi sa njëkkee yeeg yooyu waaye ay lépp ay yëfi jàmbur daal moom yooyu moom moom dëgg yàlla te goro yi nag sëkk nañ sëkk goo xam moom koo si jox goro mu tegoo si meew tegoo si patus nes suñu xëyee moog sa njëkkee mag yi fa nañ xëyoo loolu moom ndax ñun ñii dañ koy def man mi waxee dama koy def wax dëgg yàlla dama koy def moom ñenn ci ay sénégalais ne suukaru koor bi warul nekk loo xamante ne par force la na fekk na nga ko man rek wala boroom kër gi jox la ko ne la amitul sama yaay suukaru koor waaye yow soo ko amulee yow mi sëykat bi bu la kenn mere ndax jamono bi neexul te góor ñi seen loxo jotatul seen ginnaaw lu bari jigéen ñi ñoo koy forcer di ko defal seen bopp. ni ñu ko bu njëkk ak léegi bokkul bu njëkk gars yi def lu rafet comme boo xoolee ko xam ne si njëkkale boo neex am nga droit yi bu sukar foofu nga def lu yem mais gars yi dañuy loxo instant yi def njëkk jokk loo xam ne dañ ko bu beneen yoonatee comme diwen prochaine nga bëgg ko defaat fekk mënoo xam nga day métti instant jamono neexul quoi. yow su ma la bëggoon a may or man na ma te duma ko mën a fas woo waaye nga ne jox naa sama goro or àdduna yi di ko dégg jox naa sama goro lii àdduna yi di ko la sama njëkk nangam ak nangam loolu du àdduna sukaru koor di faral sax di indi ay problème ci yenn ci biir kër yi sukaru koor daal ni ko gisee gars yi ni ko joxe léegi non kiyul daal am na rafet na rafetul ndax di nga gis ñoo xam si nii dañuy nekk wujju si kër gi kee am doole kee mënul léegi nag da ngay gis koo xam ki man il faut mu daal di commencé xam nga commencé di ñëw bu ñëwee ki ki mënul daal da koy dikk di ko manifester su ko defee goro yi bu ñu comprendre dara rek mooy loolu kii mën naa dem jaay si boppam benn mën na dem gis ci boppam sëy mën na si tas. suukaru koor nekk luy métti dina ci biir Sénégal ak dëkk bu métti bi teewul jigéen yi duñu wut prétexte. koor bi seeni goro ak seen i njëkkee. Adja Khadijatu Hélène Guèye gis nga ñoo seetaanandoo élément bi ak kenn ku nekk ak jafe-jafe yi nga ciy am mm-hmm. góor ñi sax dégg nga ñoom tamit ni ñu koy dundee mooy lu fi nekk yàgg di aada lan la lislaam wax ci ponk bi waaw xam naa aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin seydina muhammad wa wa ashabihi ajmain Euh, soxna Ndeye Comba ñu ngi nuyu euh, kilifa yi ci nekk yëpp ci rajo bi si tele bi ba ci suuf di leen ziar di la delloo nuyoo di balu àq nag ci weeru àq di leen ñaan ñoom it ñu yàlla ñu baal boole baal di ñu di ñaan yàlla lépp lu ñu jàmm ci koor gi yàlla ñu ko yàlla defal mhm. waa comme ni nga ko waxee élément bi ñuy wane léegi nii xam naa ne jàngat la bu rëy ndax dañu dem ba weeru koor léegi dafa mel ni nit ñi yàkkamteetuñu ko ndax suukaru koor yi am na ñoo xamante ni léegi boo ne weeru koor a ngi ñëw rek seen fit yëpp ay dem ndax ne weeru koor commencé jàmbat sukkaru koor yi mu nekk nag loo xam ne dañ ko war a jàngat ndax farate la ndax dañu ko teg par force dañ ko war a def waa wala déet ndax nit ki dañuy wax ne bu mu jëf benn jëf te xamul lu ci yàlla wax kon teraanga fii lañ ko fekk mais est-ce que dañ ko war a tënk du lu ñuy tënk rek ci weeru koor defe naa dundin la kon fii lañu fekkoon aada bu rafet suñu maam yi daan def ay teranga suñu yaay daan def ay teranga sénégalais bu nekk ku juddu sénégalais bu ne xam nga ne teranga fii lañ ko fekk waaye nag nañu koy defee bu ñu naan saafara bu naree jur jàngoro ñu ba ko islaam santul kenn mu def lu mu mënul sëgëm yàlla mi ñu sàkk sax nee na du teg nit ki lu mu mënul laa yukallifullaahu nafsan illaa wusahaa yàlla tegul kenn lu mu mënul waaye soxna Xadijatu teraanga fi lañ ko fekk te moom ci lañ nekk ba léegi kon lan mm. moo ciy gàllankoor bi waaw gàllankoor gi mooy ñi nga xamante mën nañ ko bu ñu mënee ñu def waaye ba ci jëf ba mm. yàlla ba ñu ñu def teraanga mais nee na bu leen yàq def leen lu yem léegi nag fi muy méttee mooy ñi nga xamante ne tey mënuñu ko am complexe parce que sa moroom def na ko mënoo ko mu jaral lu nekk parce que maa ngi dégg ci élément bi kooku ne dañuy teg natt dañuy natt ba mu mat pour mën a génne sukkaru koor mais xoolal ci at yëpp li fi nekk ci farata ñu war ko mën a def est-ce nga defe ne natt yooyu buñ ko doon natt kii di sa njaboot nga war ko mën a fayal école xëy na mënoon nga ko ci fayal année bi yëpp mu jàngi xam nga loolu moo gën nekk farata mm-hmm. wala yaa ngi dend ak koo xamante ni mi ngi amee problème ordonnance koo xam ne mi ngi hospitalisé téye nañ ko hôpital mënul génn hôpital ba ndax ñàkk lu fa fay wala amul te teraanga du romb kër yaa ngi dend koo xam ne xëy na yéen a gën a bokk mu sonn soxla ko nga di ko joxe ndax bëgg ku la gërëm. waa su ma la déggee euh, ñi ko mën kon loo boo ko mënee balaa ñuy dem ci ñu ko mënul ndax xam naa ne boobu moo ñuy gën a itteel mhm. waaye ñu ko mën kon loo ci joxe baax na boo joxee billet baax na boo joxee fukki ganila boo joxe sa euh, camion suukar kon ku ko mën amul problème loo ci joxe baax na déet lislaam waxul kenn mu yàq hmm. di sant ah kenn mu yàq boo ko boo joxee yàq lay tudd déedéet yàq la yàq la parce que wala kon da ngeen di yaakaar ni puukare da ciy lalu wala waaw puukare da ciy lalu te yàlla bëggul puukare ndax nee na puukare yëfu seytaane la yàlla bëggul puukare lépp yàlla moo mënoon defal ñëpp teraanga waaye dafa jox ñi xañ ñi yàlla mooy ki nga xam ne moo omal du dëgg mais tuuti la ñu jox kon bu la joxee sa alal waxu la nga nga puukare ci am na feneen lu fu mu xaj soo defee li nga xam ne mooy teraanga teraanga fii lañ ko fekk suukaru koo lañ ko tuddee woon lu tax léegi ñu tuddee ko ay billet màkk lu tax léegi ñu di ko tuddee ay ganila mhm. ndax loolu suukar la kon nañu soppi tur bi indil ko beneen tur tuddee ko ganila parce que bu yàgg mag ñi dañ daan xam ne kii sama njëkki la wala sama goro la mhm. nga ne weeru koor bi ñoo na pour ma dimbalee ko li muy nar di dem di jënd ji suukar ba su nekk wala ay meew wala café wala ma defal ko beñe bu bari indil ko mm, wala ma defal ko ay jus mu koy dimbale ko si koor gi jotul gannaaw nga dimbali ko ci grosse suukar wala indil ko ay meew ataawunu alal birri wa taqwa la ñu wax dimbalante ci yiw ak mbaax mais booy seet ndey kumba léeg-léeg ñañ koy jox sax moo la ko moo lay ëppale waaye nga romb ay kër yoo xamante ni tey yaa ngi romb ci mbedd mi dugg si sa pajero yóbbu teranga nga gis ku taxaw ne la ngir yàlla benn tàndarma sax yéene woo ko ko ci nga dajale sa pajero ànd ak sa géwél dem ba ci kër ga wàcc teraanga boo xamante ni def waa lu ne nga wone ko di wane na nii laa toll te yàlla bëggul koy xeeb nit souvent ñu koy def souvent ñu ngi seen peut-être seen wujj péccorga wala seen wujj yoo xam ne seen loxo jotul seen gannaaw ndax seen borom kër ñooñu amuñu te nit ñi léegi ku leen defal moo baax borom alal moo baax nga yaa baax ki ne ci kër gi di togg guddeeg bëccëg wala ki nga xam ne mooy bala ca kër ga mooy fóot mooy def lu nekk kenn du ko gërëm ndax lan amul ganilaa yu muy joxe wala amul ay ay béye màkk yu muy joxe kon nañu seetaat li nga xamante ne parce que tey bëri na fitna yoo xamante ne mu ngi judd ci kër yi te loolu da da ci da ci bokk te yàlla bëggul ko yee fitna euh, bu ko defee suñu yaay itam ñu bàyyi xel hmm. xam ne teraanga rek du alal nit nit dina la wax wax ju rafet nit du comporté woo jox la jox la yar jox la jox la hmm. respect jox la cër bàyyi kër ndeyam ak baayam ñëw sa kër hmm. di la guddil di la bëccëgal boobu teraanga defe naa moo ëpp koo xam ne at ba at lay ñëw di la ko defal kon loolu dañ rek ni ci kanam tuuti dinañ ubbi ligne bi yéen it ngeen mën cee bokk ci 88 628 99 99 teg ci 114 Adja Khadijatu léegi ci sa biir wax mhm. euh, bu ñu rombee euh, koo xam ne amul ngay dem di jox koo xam ni am na naam sax mën na nekk sa waajuru borom kër mhm. maanaam sa goro wala sa njëkke wala say xaritu jëkkër wala say euh, dëkkandoo yu yàgg mhm. kon boo ñee war nga leen a jox waaye boo rombee ku amul kon lis l'islam bëggeewu ko noonu kooku ko gën a soxla ndax yàlla dafa ne booy sarax da nga naam kee sax dafa bokk ak yow bokk nag yow mënul ñàkk nga jox ko cadeau ndax yonent bi moo ne da leen joxante cadeau hmm. tahaadu tahaabu da leen mayante ngeen di soppante lu dëgg tey koo jox dara rek war na war na la mën a sopp dafa am ñu ko jag ñu ko yàlla jagleel ñoo xamante ni ñoom ñoo soxla loolu kenn ku ci nekk même buñ la waxul aaya alxuraan wala wax ñu la xam nga lu xel nangu lu xel nangu lu dëgg te léegi am na ñoo xam dañ koy def sax malgré ñoom ndax rek bañ ko leen xas mm. kon yéene ba ka lal sax mm-hmm. amoo ci yàlla amatoo ci yàlla waaye nit ñi nga bëgg ñu gërëm la rek mm. te nag yàlla moo ñu wax ni mm-hmm. bul topp ngërëmu nit ba fàtte si ngërëmu borom. Mm. dafa ne laa taata li maxluqin fi maxiyatil xaaliq mm-hmm. yaa ngi topp lu bëgg lu neex nit ba fàtte li neex sa borom bala booy wut teraanga mhm. def ko ci sa borom sa borom moo mën a fay mooy fay bu fekkee nit ñi nga bëgg nu tuddal ko bu ñu la ko tuddalee tey bu yomal xiyaamee la nga def yëpp boo ñëwee ne yàlla fay ma du la fay ñu jël foofu ci euh, wàllu teraanga bi war a fay te ñu bañ xaar fayu nit ki dinañ ci mhm. duggaat léegi mhm. waaye ñu nekk ci bu mu jokkoo bi tamit ci lañ euh, dafa mel ni ragg na ci kanam tuuti xam naa dina duggaat ci 88 628 99 99 ñu teg ci 114 yaa ngi doon wax ci fayu yàlla nañuy bañ a xaar fayu nit ki ndax dañ naan pourtant pour ku lay defal lu baax te waxuloo ko booy lim say noonu boole ko ci. waaw bi waaye nekkul moom ngay xaar ko. waaw waaw mais am na ñoo xamante ni bii. buñ lay defal xaaruñu sax nga wax nga wax ko. Mm. ndax am na ñoo xam ne alxuraan moo leen teg. waaw baal ma ñu jël kii. bala moo rëccaat allo. allo waaw asalaamaaleykum. maaleykum. salaam. waaw na def. ñoo ngi sant. waaw fàttali tur bi ak foo ñuy woowee. Euh, Walf Kër Aliassime. waa ñu ngi lay déglu. El Hadj Kadim Cissé. Cissé. waaw maa ngi rafetlu émission bi bu baax a baax. jërëjëf. di <coughs> rafetlu kii bi ngeen jël thème bi. waaw Khadijatou euh, Hélène Guèye. moom lañ fi dalal tey. waaw ñun liñ ci wax rek mooy suukaru koor moom yaakaar naa ne képp ku ko moom. Mhm. mooy wàcc na la maanaam tiranga la rek tiranga moom. Mhm. yàlla bañut ko fenn. Mhm. loo tanee sa moroom nga dimbalee ko. buñ man bu fekkee ci côté boobu la ñuy waxee moom. loolu mm-hmm. moom lu baax la daal. Mm-hmm. maanaam tiranga la rek tiranga moom kenn du ko xeeb. Mm-hmm. xëy na nag am na ñoo xam ne moom. seen gannaaw moom dañ ci am cat. parce que léegi gore yi ñooy ñooy ñooy ñooy nekkee noonu kenn ci biir kër. diw indilagun ma sugaru koor. diw indilagun ma nangam ak nangam sama sër bi indilul ma sugaru koor. mu nekk loo xam ni day dem ba day seene euh, kii. allo. waaw Cissé dafa mel ni ligne bi mhm. dagg na. Mhm. ñu koy jaajafal euh, mu ñu waa fa mu doon wootee yëpp. Mhm. Euh, ci wàllu li nga doon wax léegi rek ku ko mën ak ku ko mënul. waaye dañu fekkoon ci ponk bu am solo muy yàlla miy fay. xam nga yàlla dafay bañ koy yee fitna te booy seet léegi suukarum koor yi mooy yee fitna ci kër yi parce que tamit nit kiy daan ñaqam. xëy na mosuñu ko kaa gërëm nga gis soo xam ne xëy na dëkkul sax ci kër gi mhm. day def at bu at bu ñëw indi la teraanga mhm. nga taxaw di ko gërëm léegi dañ siy dem ba comme niñ ko mbokk ma waxee woon dem ci xew yi mhm. yaa ngi xaar nit ki pour ngeen daje si xew nga mën ko gaaruwaale di gërëm kii di ko xarab di ko xas mais loolu xam nga def tey gërëmoo sax te yàlla tax kayitam xëj na ba mu koy def defu ko te yàlla tax dafa bëgg ñu xas moromam moom tamit loolu la ci bëggoon kon léegi ani ani ani ani ani yàlla yàlla ani yàlla réer na ci ñaar ñooñu ñëpp ani yàlla ñu jël ki ci ligne bi ba noppi doog a dellu si waat ci ponk boobu mm-hmm. wal fajri allo asalaamaaleykum day Kumba Diop nuyu naa la ñoo ngi lay fay daam kan la fal daam kan eh, eh, <laughs> yàlla bu baax baax rek alhamdulilah ñu ngi lay dégloo ñu ne gan gi maa ngi lay di nuyu sa gan. di wax góor baax na jigéen baax na. Mhm. maa ngi ñaanal jigéen yi yàlla ñu gën a yaatu ci diine ji gën a dund ci lislaam. ndax loolu lu am solo ci réewum Sénégal la daal. leneen mhm. li ma ciy teg nag mooy sukuru koor dafa am loo nga xam ne moom la làmbool léegi ci senegal yàlla taxatul ngir tala tax ñu bëri ñu koy def ngi tala ñu di ko def. Mhm. ndax su góoru góor bu demee ba nga xam ni góor bi nga xam ni mooy jur jëkkër day teg fitna jabari doomam pour ma di ko jox sukkaru koor loolu yàlla amatu jëkk jigéen bi nga xam ni mooy sëy ci ba yëg boppam am na tuut di dif ngistal ci moroom jigéenam xam nga ni loolu yàlla taxatul loolu yu mel noonu waroon nañ koo tànn lu dul ci weeru koor sax rawatina weeru koor wu dedd bi nga xëy woor ba ngoon jëf jëf ju mel noonu mhm. yàlla soppali ko ak karwaat war la koo caw yow mu ki nga xam ni yaa koy nangu ak tey joxe yépp loolu kon seen koor gi war nañu koo seetaat bu baax a baax ak doxalin yi nga xam ne ñu ngi koy doxalin ci koor yi daal war nañu seetaat mbir mi nga xam ni yàlla tax ñu di ko def ñu def ko li nga xam ne adduna rek a tax war nañ koy dëddale weeru koor waxoon dumaa dudul weeru koor yi mhm. Mhm. nan bàyyi xel ci jëf ju ñaaw ji nga xam ne mu ngi am ci weeru koor yi te buñ ko di ñu di ko tuddi sukuru koor loolu tuddul su tuddul sukuru koor toroxte mhm. waaw waaye tuddul <laughs> na jigéen moytuwaat seen mm, bopp bu da yàlla ci mm-hmm. yàlla dara yées dara yéesul def taranga defe ne am nga taranga mu ñu toppali ko xiir di la ko caw daal war nañ ko bàyyi tam baax a baax yéen jaati loolu salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mm-hmm. eh, jërëjëf ñu lay gërëm ci woote bi mu ngi rekk wax li nga xam ni mooy ñi ko mënul ba mm-hmm. pare di ko joxe ak ñi nga xam ne utatuñ ci yàlla tax ci ponk boobu la ñu fekkoon ki koy mhm. doxe utu ci yàlla ak ki ñu koy jox moom it gërëmul ngir yàlla ñëpp mhm. gistal la ci bëgg waaw comme ni ko mbokk mi waxee léegi ki génn léegi nee dootu tuddatu suukaru koor mais mbugalu koor la mhm. parce que am ñoo ne mbugal la si ñoom mbugal la si ñoom yaakamte ni léegi weeru koor li ci nekk ci yiw li ci yàlla digle li ci làmboo ci ci ci mbaax ah mu ñëw ndax lan fitna ndax xalaat say soo ko amulee lu nekk wàll dem nga loolu moo ma gën a jaaxal parce que tamit nit kii dafa dafa defe ne yow bokk na ci personnalité nit looy def na ko yàlla tax looy def na ko imaan sax euh, lal looy def na ko yéene bu sell lal gis nga léeg-léeg sax nga gis bu yàgg ba mag ñu bëgg a def teranga xalaat ne su ma ko defee sama mën a wala nga ci kër ga mmh, mënu ko mënu ko kon su ma ko feesalee dina nuru leneen mmh. nga gis koo xam ne daan woowu ji téléphone ba mu ñëw ne ko man di lii laa bëgg def kaa ñu bokk nga def nangam ma def nangam mu gën a rafet mm. ah mais léegi dafatuñ ko la ñuy def te léegi yamatul sax si ñoom mais ba ci seen yaay yi ñëpp ñoo leen di ngemb mu nekk nekk mm. genre xeex ci biir boo xamante ni bii loolu taxul woon mm. euh, jëftu euh, jëmbalante jóg fee tamit ñi nga xamante ni ñoo waroon tey nangu teraanga bi ci nangun bu rafet ñoom tam dañ koy def arme pour di ko xeexee ki nga xamante ne xëy na tey amul te nag gis nga ñàkk du bàkkaar ñàkk du bàkkaar kon nit ki tamit war na am personnalité bu ko yàlla defee moom mu nekk ko amul mu yem ci li ko yàlla jox ndax am na loo xam tamit joxe ko ba pare di xultu te fekk yaa gën a soxla ka koy jox amul sens ndax alquran mu ñu wax ne yaa ayyuha lazina amanu laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal aza kallazi yunfiqu maalahu riaa annaasi wala yuminu billahi wal yawmil axir nee na bul bul bul bul jël sa alal mhm. di ko dépenser ci loo xamante ne li xëy na sa xol àndu ci àndu ci te boo ëllëgee bu ëllëgee nga topp te rafetul parce que di jox nit ki loo xam tam yéene woo ko ko wala yaa ngi ko di ko xulti ci suuf joxu jéppi lay doon joxu jéppi lay nekk kooku ndax bu ko lekkee sax dana rees waaye bu la société bu ko société bi tënkee boo ko joxewul di am beneen xaas est-ce que boobaa joxe ko sa xol neexul sax du du tere nga joxe ko rek pour nga féex ci benn ko bu boobaa ni yàlla xam nga man day kumbu su ma wax toujours damay ñi nga xam ne dañu gëm yàlla nit ki bul sàkku ngërëmu doomu aadama ba fàtte sa ngërëmu boroom parce que tey alal boo am ëllëg dinañ la laaj nan nga def ba am ko ba nga ko amee ci lan nga ko dépensé ndax ci yoonu yàlla nga ko dépensé wala ci yoonu nit ñi nga ko dépensé parce que pertement lay nekk moo tax ñi nga xam te yonent bi sallallahu dafa ne moytu leen bokka mu ne ki nga xam ne day gistal lépp lu muy def dafa bëgg nit ñi taxaw gërëm ko bu yomal xiyaamee na bu ñëwee ba ci yàlla fekk yàlla di fay woy woy ñu doon jëf mhm. mu taxaw ne yàlla defoon naa nangam ak nangam mu ne danga bëggoon ñu tuddal la ko tuddal nañ la ko ña nga bëggoon ñu gis ko gis nañ ko ñoo ñoo taxoon nga di ko def pour ñu gis ko teral la sara xolle la foqal la ay musóor tagg la fu ñu la fekk teg la ca kaw wàcce say naw la ci suuf ñoo taxoon nga di ko def demal ñu fay la yàlla nga loolu pertement yàlla dañ ci yàlla musal kon jigéen ñi lu ñuy defati mhm. nañ def te yàlla tax rek waa su ma la déggee dañu daan faral di wax yaay yi ñoo war a yar mhm. ñoo war a tette léegi ci sa biir wax dañ bari yaay ñoo la ciy buux mhm. boo ko mënul sax ñoom da leen di jaral tegg seen nat wala ñu def seen dërëm ak seen tànk la ko yóbbul kon yar bi fan lay feeñ mooy li ma la wax rek xam nga tey euh, éducation de base nit ki dañ lay yar euh, ci ci doylu yar la ci nga xam sa bopp yar la ci personnalité gis nga jigéen shaxsiyatul muslima jigéen dafa war am personnalité ba nga xam ne dara du la fëkk dara du la influencé su fekkee responsable nga dara du la respons dara du la du la influencé parce que soo nekkee si àddina nga xam ne yow da fi ñëw rek jaaruwaay nga da ñëw pour liggéey fi lu tax ëllëg yàlla gërëm la kon def naa looy def rek atte booy def rek di xam lan la ci yàlla nam lan la ci yàlla bëgg ndax li may def yàlla dina ko gërëm wala du ko gërëm man foofu laay waxee parce que nit ñi dañu topp ci di topp lu neex nit ñi lu neex nit ñi ba fàtte li neex seen borom yàlla moo ne de joxante kado de dimbalante mais kan mooy yelloo ndimbal tudd na leen tudd na ñi ñu war dimbali mhm. miskin yaa ngi fi fuqara yaa ngi fi mhm. doxandeem yaa ngi fi mhm. du dëgg ak ñi nga xamante ni tey xëy na dañoo tuub dugg ci lislaam seeni i mbokk baleen bala ñoo yeggale ci ñi nga xam ne ñoo yeyoo ndimbal ñu jël ki nekk ci buumu jokkoo bi ndax ñoom it ci lañ bokk mm-hmm. allo allo salaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam soxna Ndeye waaw sëñ bi ñu ngi lay fay maa lay ziar ñu ngi nangu ziar waaw ñu ngi leen di ndokkee bu baax si koor gi mm, jërëjëf waaw di baal ñu ak di baal di baal ak ñëpp ak la leen dara ak mm, jërëjëf waaw di ñaanal ñëpp ñu dugg alhamdulilah uh-huh. waaw ñu ngi leen di sikaroo encore leen sago di leen ndamoo saa su nekk. jërëjëf. indi si nga thème am solo bu méngoog jamono. bu mm. ñu soxla woon encore. Mm-hmm. Eh, ndax eh, li nga indi yaakaar naa fu mu toll nii ndax fasanaa fan ak fan si gannaaw rek te fan yëpp moom lañ moom lañ nit di wax. Mm-hmm. kenn goro bu nekk nga xaar nag. su mm-hmm. fi nekk nga xaar ku ko indil eh, suukaru koor. suukaru koor. waaw ndax suukaru koor du farata sama yaay ji toog léegi wax na ko maa ngi lay nuyuwaale encore si biir émission bi. du farata. tey man dama damaa toog euh, juróom-ñeenti weer fukki weer fukkeelu weer bi man gëñ mu tombeeg weer ko gëñ naa gis Ndeye Kumba ma ne xaaral ma dem kat Ndeye Kumba kat sama jigéen la xaaral ma dem yóbbaale ak suukar su ma siyaaraale ko la nga doon li ma ñaan ndax kat euh, jëmm ngi barkeel suñu borom rek koo xam ma mhm. indi benn suuk benn benn sasa suukar wala benn kilo suukar wala benn euh, libaru meew wala lu mën doon rek ànd si ñëw teg sa loxo mhm. tombe su dañ ko tuddee suukaru koor maanaam ndax la rek waaw la ñu ànd la mm. mais taamu wuñ ci nga dem sax ay or wala gañi laa wala leneen ak leneen di ko jox yow am na ñoo koy gën a jege ñu ngi ñu ngi sa biir ñu reeree du ñu ndékki wala bu ñu wooree ba ngoon pour ñu ndogu da leen di ko nag fu ko fëgg te xam leen léegi nga jël lu toll noonu valeur ay deux cent mille cent mille cinquante mille quarante di ko jox ñoo xam ne yow wóor na ne bu ñu reeree ginaar yow nga reeree ceebu ñebe mm. ah. te yow muy reeree ceebu ñebe yaa leen koy jox ceebu ñebe da leen a të waaye yemal sa ceebu ñebe ngir yàlla te nga jox ñu amul am ñu amul ceebu ñebe sax mais dem di jox ñoo xam ne ay git ñu réeree oh, waaye sénégalais yi ngir yàlla ñu ànd ak seen xel te ñu def lu islam bëgg bàyyi bàyyi lu islam bëggul te yàlla daf leen di koy jërëjëf Ndeye Comba jërëjëf ñu lay gërëm ci sa woote mu ngi ñu fekkoon ci ponk ñi nga xam ne ñoo koy yellool mhm. ak ñi nga xam ne waruñu ko jël daanaka moom loolu la wax sax ndax booy joxe kenn cinquante mille te ñi nga dendal am na ñoo xam ne bu ndogu jotee la yàlla mm. xam doy na fu ne dinañ fa dugg ngir doog am lu ñu tega seen waa mm, mooy li ñuy wax rek xam nga weeru koor lu ñu weeru promotion la yonent bi sa salaam dafa wax ni yenn nit woor ba ba ngoon jot nga jox ko benn tàndarma mu dogee ko am nga yoolu koorom moom ci dara du dëgg te day booy seet rek li ma lay wax moom dafa nekk loo xam ne c'est bi ñëpp xam nañu ko dangay ngay nekk ak sa frère wala nga nekk sa sœur mu gën la soxla li ngay joxe ji mm-hmm. ngay jaay bëgg ku la gërëm wala ngay jaay dir yanke doo ko joxe foo xam ne kenn du la fa gërëme nit ñi joxeetuñu foo xam ne kenn du leen gërëm dañuy bëgg rek fu ñu leen joxee ku nekk taxaw di ko sara xolle mooy li ma wax léegi am na ñu ko gën a yelloo ñooñu lañ ñooñu lañ ko war a jox. waa ci doguma la sax ndax bi ñuy préparé éléments yi am na ñu fi woote ni ñun dañoo jaaxle ndax mm. suñ jeeg bi ñu dëkkal ci weeru koor bi bu nduggee ay ganaar yu baax ñu tege ni waa kër gi ñoo tax da koy togg ba mu jekk yennu def si booli ñu jour boobu mën nañooy reere yaasa wala wala dépense kër ga waaye moom la mu jënd ndugg ko muy ay ganaar da koy toog ba mu rafet dem yekkal ko nit nee na ku muy jox suukaru kooram njëkkeem loo gisee loolu am na njëg yu seeyee loolu seen biir kër duñu fa def dara lu baax waaye lu ñu am yóbbu ko ci biti pour ñoo ñu gërëm leen mm. loolu day am mais bu boobaa day dugg ci li ma la wax rek mooy àtte bi ñuy wax rek bu ëllëgee yàlla buy fay mm-hmm. du la fay ñi nga bëgg ñoo gërëm la rek ñoo lay gërëm ñoo lekk ginaar rek ñoo la gërëm ñoo lekk ginaar rek sa ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ni nit du nekk ci kër di togg bu yàgg dañu lay wax ne sa dëkkandoo sax mhm. boo toggee mu xeeñ ko yokkal ñeex bi ndax nga mën ko may mhm. waxatuma laa koo bokkal benn kër togg ay ganaar ñu teg ci seen bët nga romb leen dem jox ko keneen yonent bi nee na amoo ci dara amoo ci benn yiw man li ma jaaxal ci boobu góor ñi lu ciy seen wàll ndax dañ ñaan ñooy borom kër yi moo fay am bu boobaa ñoom du ñu mën a lijjanti kër gi ne la eh, lii nga bëgg a def mun ta nekk lii ak lii la wala dañ lay bàyyi rek ngeen def ci lu leen neex wala yaa moom sa xaalis wala yaa dajale sa nat eh, bu góor ñu ñoom yan na leen ci yàlla teg nga baal ma xam nga bu ñuy wax boroom kër responsable la war a nekk responsable mooy ki nga xamante ni dara du jib ci këram te du xam lu mu doon te nag dañ dem ba léegi nit ñi dañ leen di rek borom kër mais duñu dogal dara seen kër ah góor ñu dogalatuñu ah dogalatuñu de parce que parce que seen seen soxna yi lu ñu suñu bañee sax seen soxna yaay woñ seen loxo mhm. ñu jox leen léegi nag bu fekkee dina yow sa sa sa borom kër ku am caractère la mu loom doo ko dugal ci lu mu manul mhm. jaral na la nga xuloog moom baa nga xas ko baa nga tas say dem ndax lan ak sëy li mu sacré mhm. mais nag bëri na loo xamante tam góor ñaa ciy gëmm seen bët ndax bëgg nañu fu ñu taxaw ñu gërëm seeni i jabar mhm. fu ñu taxaw ñu seen jabar a fi def lii moo fi def nangam am ñoo xam ne ñooy génn jox seeni soxna baax na nga defal sa jigéen baax na nga defal sa yaay baax nga defal sa pap mais du ci weeru koor kese du loo xam ne dafa jar abitama du loo jar loo xam ne dafay taxaw ut ay seede nit daal ne defal euh, goroom di defal ay teraanga te kenn du ko yëg kenn du ko yëg parce que xam lu tax dafa xam ne ki muy ki muy lebal moo jar lebal ko hmm. mais yàlla mi nga xam ne moom la def seede moo ko koy atteel ëllëg du dëgg nit def na teraanga ba tàyyi am na ñoo xam ne rek lañ defal teraanga sax du ñu bëgg sa teraanga dañ koy sànni mbaa ñu mayee ko koy jël ba pare xam nga lu koy faj <laughs> hmm. yéene ba ko lal ñu ñu jël ki ci ligne bi ba pare doog a wax ci wàllu teraanga bi ak yéene bi nga xam ne moo ko lal allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñoo ngi sant. waaw ñoo ngi sant bu wér noo tudd foo ñuy woowee. Euh, sëñ Mortala Amar waa Darou Khoudoss. waaw sëñ Mortala ñu ngi lay déglu. waaw euh, li ma doon participer ci émission bi. xam nga sukkaru koor bi. li nga xamante man noonu gis nii ñu koy joxee nii vraiment dem ca dem ak seen bakkan mais ci moom. Mm. ci ngor dematuñ ci diine dematuñ ci aada daanaka. Mm. kon foofu Touba joxe na fa. vraiment xam nga boo dee seetaan télévision yi ak euh, mboolem du lu nekk ci biir Sénégal rek. di nga xam boo xoolee wax dëgg yàlla ni koy joxe xam nga nit ki nga xamante ni maanaam dafa am gorom walla mu am. koo xamante ni di cëru goro la ci moom. Mm-hmm. mu war ko jox ko def war ba pare yëkkati adduna bi ci biiram lépp yaakaar ni moom la war a yëkkati dem jox ko ko ci benn jour. Mm-hmm. raa nga ma mënut a yem ci benn bés. Mm-hmm. jàpp naa ne loolu nit. allo. waaw. nekkul forcément loo xamante ne lu nit ki war a def la. ci benn fan. ci benn fan surtout nag moo askan. maanaam damay jàpp ni war naa mën a yëkkati super sport loo xamante ne bii lu lu yell la rek loo xamante ni ku ko gis tam da xam ne nit lii jaadu na yam mm-hmm. na ci nga ko séqal mm-hmm. te moromi nawle yi koy gis itam mm-hmm. buñ ko bëggee def danañ ko maa def te duñ la toppandoo ci ni nga ko jëlee ci façon bi nga ko jël ci àdduna dama bëgg daal nit ñëpp maanaam comme loolu soxna si wax sànq télévision bi ki nga invité nii soxna si toog na miin bu baax soxna Xadijatu mhm. waaw soxna Xadijatu maa koy siyaare bu baax maa ngi lay euh, comme ni nga waxee nii maanaam nit ñi dañoo war a delluwaat ci lislaam xoolaat mhm. seen diggante ak ministère yi mhm. xool ba nga xamante ni kenn kenn ci looy séq ak moom danga ko def ci façon boo xamante ni ngistal du ci bokk puukaru du ci bokk nii laa toll du ci bokk nii laa mel du ci bokk non seulement da nga koy respecté suñu mhm. mhm. mhm. jërëjëf. ñun ñu waa Touba yëpp ñu leen di ziar. Euh, ponk bi mu nekkoon daanaka li nga doon wax ci la la fekk si rek. ni ñu koy euh, mën a joxe. Euh, muy lu am solo dafa mel ni am na keneen ku nekk ci bu mu jokkoo bi. bu beggandee ci 88 628 99 99 ñu teg ci 114 allo. allo. waaw sëñ bi na nga def. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. honorable député la Mor Niang bu Mbacke Bari. Mor Niang ñu ngi lay fay. waaw ah, Adja Sine Koumba Diop ñu ngi lay nuyu di nuyu seen techniciens yi ngeen àndal di leen ñaanal jàmm. waaw ñu ngi lay fay ñoom ñëpp. du ñaan suñ borom su wa taala mi nga xam ne wax naa ne moo weer jàmm te doyoo ko dara yàlla dolli jàmm ci réew mi pare tasaare ko ci biir réew mi amiin amiin amiin. ñu ngi seen gan googu ngeen dalal loolu. soxna nit ñi bu njëkk dañ ko doon def pour cosaan bu rafet. Mhm. parce que bu njëkk dañ ko daan def ah, pour rek. góor góor yi diggante bi gën a ratax. gën a ratax mhm. mhm. parce que lu baax. bu si lislaam ñëw ba léegi kenn mësu koo soppi lislaam lu bon rek la soppi. bu njëkk dañ naan bu ndox bi duñu rey. mais bu lislaam ñëwee ci la tey. dindi ko kon ah. ci ci ci ci la tey moo tax ñoom lu rafet. Mm-hmm. mag ñi lañ ko daan dox. Mm-hmm. fexe ba euh, woor koor jot na. Mm-hmm. nga jël dara daa jëlee ko suukar wala sew wala yenn yóbbu. wala meew loo am rek ko say waa kër. mu yóbbu ko seen goro loo am rek. di teraanga parce que teraanga moom. bu tuuti alxam dafa ne ku def lu rafet am rafet. mais léegi ni ñu ko defee nii moo baaxatul. dañoo gën a xasal góor yi ba góor ñaa ngi dem mbedd ma léegi nu mu wutuñu leen gis sax. déedéet kay. waaw te góor yi daw nañu bay bëgg a dee. Mm-hmm. dañoo daw a daw a daw ba nekkuma góor ñi ku leen jural. yéeme na ku boo takkee soxna. Mm-hmm. amoo moom ay mbokk boo sa yoon nga defal nga wutal sera nga defal leen. dëgg la. mais bu fekkee ne amoo defal dara léegi dañ laa bëgg a sàcc loo ci nga ñëw buñ demuñu la sàccee. buñ ci jàppee bi ñetti weer leen la yóbbul ay yi des yëpp ñu yóbbaay def naa def. <laughs> kon góor ñi dañuy def mm-hmm. mais bul def teraanga bu jëli fi jaamur. bu def te teraanga ba lepp te fasoo ko yéene fay am na ñoo xam ne fu doon wax ñu ngi def teraanga dañ koy leb te foofu ñu la fay seen borom loolu bu yàggee daf doon ak sàcc ko law na nañu defee seen dëkk yi li ñu mën góor yi demoon xam ne teraanga wàññiwul dara lépp lu waaye mën a def ci rafetal mhm. te sa xol man ko war nga kaa man a def ko rek mais bul def daal loo mënul man daal li may wax mhm. mooy bul def loo mënul bul wax loo mënul te boo ci nekkee ci jafe-jafe ka yóbbu la saamer gee mm. ñaari fan lañ la fa yóbbu ak ñetti fan ñu ne foofu dafa sori wala xaalis aw ma paas kër gi dara nekk fa nañ fexe lu xale yi lekk ngay dégg mm. kon góor yi nañ def lu ñu mën yàlla yàlla yokk jàmm ji. jërëjëf yàlla tasaare jàmm ci réew mi doo ko salaamun min allahi wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf ñu woote bi. ci li nga doon wax wàllu boroom kër gi ñu leen di yel lu ñu mën wala ku leen yel lu ñu mënulut ñul bañ. foofu rek mm-hmm. la génnaat moom tamit. doon ci indiwaat ay leeral. Mm-hmm. mais mu ñu fekkoon ci wàll bi nga xam ni moom mm-hmm. la ñu war a nangu. waaw comme niñ ko waxee di nga gis euh, man daan naa gis bu yàgg bi da daan nekk ci kër euh, yaay ji nga xamante ni moo moo jur njaboot doomam xëy na seen loxo jotul seen gannaaw mu xam ñi nga xam ne am na ñoom ñu amul mhm. léeg day jël sa alalam dànk jox la ne la ma jox yaay diw mhm. loolu moo daan am ñu xam ne yow amuloo moom da daan yëkkati alalam sax ne la dama jox yaay goro bi waaw mu leen jox la dama jox sa wujj wujjam wala mhm. rakkam wala kenn jox la ne la jox ko loolu yëpp jàppale la xam ne teranga la waaw ci wàllu goro yooyu ndax niñ daan taxawee ba tey ñu ngi ci ngir defar njaboot gi bala ñu cee tontu ñu jël kenn ku nekk ci ligne bi ba noppi allo allo asalaamaaleykum maaleykum waaw. ñoo ngi sant. naka gi. ñoo koor gaa ngi nii. yow yëpp yow joxe nga suukar koor. ah man. yow. waaw joxe naa li man ak li am. waaw man de dégg nga. xam nga nit ah, yi ah nitu taax joxe suukar koor loolu moom. ko ji waa Dakar non lay wax. problème yu bari ah, ma bàyyi la nga expliqué ko. Mhm. waaw parce que ay joxe ay jéem a ay teere ak ay biyee makk ak ay oto yëpp. Ah. bëgg nekk ci ay banque yi ci nit baax yi la jóge ah. xam nga nitu àll. Mhm. ñu bari du ci dugg. Mhm. ndax nit ñi seen goro yi seen yaay lañu. seen yaay lañu parce que nit ki foo nit nit li ji jiitu ci goro. mooy mun ko toggal mun ko fóotal mun ko. bu ko wooyee ñu ne kii doomam la. Mhm. loolu moom moo ci dina am solo par rapport gis gal la teguñu ko benn ay misal ndax la def lu baax ngay dem di ko bind ci ay surno ak di ko filmé mhm. loolu amul saas mhm. te gis nga dafa am loo xam ne lii course de foola du course de vitesse sëy comme que nit ñi yàlla def ko def nit ñi fas yéene ànd ci dañuy kenn ku ci nekk bu wuyu sa borom. Mhm. nga war a nekk sa goro ba mu gën a àdduna wala naar ak deytaani mhm. donc yooyu ku cay def da ngay def loo xam ne ni mun nga sax. loo mën mun mhm. nga ci dëkk. waaye nag gis nit koo xam ne kii xamoo fi muy jëlee lu muy jóge ñu bu nga ko këppandoo. yàlla santul nit lu mu munul. dëgg xam nga dem makk dara gënu ko nekk farata. sunna suñu borom dafa ne soo leen wéree ngeen am ko def leen mhm. tabaski tabaski bu nit amul di yàlla def ko wàcc ci kawam nan mhm. ngay bugg wax nag loo xam ne ni amoo ko rek bugg gis leen ne ci affaire wujje ak lu kenn amul mhm. nga koy dugg loolu man dama ko kontor man de dama kontor xam nga man sama yaay yemale wu ma ko dara ndax ndax bu ma duggee ci oto ba waa may def dara ma talal ko loxo mu ñaanal ma. dee su may tëllu yaay laa koy waxee waaye sama jabar bu moon duggoon dugg ci loo xam ne ni wóor na ma mënu ko. mënu ko nga ne ma ko dama ko ci bàyyi. Mm-hmm. dama ko ci bàyyi nit day def lu mu mën. am na solo nit ñi nañu dellu ci topp yàlla di jaamu yàlla moo gën li ñuy def pasar pasar alal gi de duñ ci am tiyaaba duñ ci am dara. Mm-hmm. maa ngi leen gërëm di <laughs> <laughs> jërëjëf am na solo macha allah mu doon wax rek ci mhm. wàllu suukaru koor geeg ñi ko mën ak ñi ko mënul mhm. euh, bala ñoo dugg ci ponk boobu di ci yaatalaat ci daf mhm. ñu fekkoon ci goro yi ndax bu demee tey ba nekk nekkatul suukaru koor am ñu ko tuddee kaani koor euh, kon goro yi nga xam ne ñooy nanguwaat ak njëkke yi boobaa ñoom lan ñoo ci seen wàll ndax bu ñu xamee ni kii amul wala kii moo ëppale kële amul lu ñu war a taxawee mm, waaw moo li ma doon wax sànq rek am na ñoo xam ne ci seen wàllu màndu dañu xam ne ñoo jën ñëpp te xam ne ñi am ak ñi amul bu ko defee bu ñu mësaan gis sax kenn ñëw def teranga mhm. ñoom dinañ jéem yëkkati dara sax jox la ne demal def teranga ci kër mhm. diw parce que parce que daf la jàppee comme doom rek mu xam ne sa doole fii la yem waaye bëgg na yow boo léegi ñu gërëm la mu yëkkati as suus ne la dama jox sa yaay diw mhm. dama jox bàjjenu moo xam sa sa jëkkër wala eh, jigéenam wala nangam de kenn du ko yëg mais léegi taxawaay yooyu moo amatul ah kon góor yi taxawaatul ah, tànk bu dee njëkkee bu dee am na tam dee bareetul waa parce que ñoom dañuy yaakaar ne affaire bi par force la dafa ma ko war a jox xamul ndax sa càmmiñ am na ko xamoo ndax sa doom am na ko wala déet moom daal diw indi na dina indi dem nañ sax ba da ngay indi ñu xeeb la nga indi hmm? waaw di di ko peser ak ki nga xam ne kenn moo indi lu gën a bari gis nga kon loolu yëpp dañu topp àddina loolu yëpp dañu topp alalu àddina te alal moo indi fitna gis nga eh, nit nit war nga ko jàppee ci jikko war nga xool ci dooleem bi mu jël di ko passé si yow temps yëpp mu di ko passé si yow day kumba loolu mooy teraanga teraanga day sax teraanga day sax mais teraanga boo xam ne boo amee nga def te gis nga yow mi koy def nag di ci sonn noonu bés mm. boo ko amulee ñu fàtte la mm. keneen ku ñëwaat di defaat loolu mooy nekk ci kaw mooy nekk ci kaw mooy def ba mu baax yow defatoo ba mu baax kon loolu kon <laughs> loolu les loolu est-ce jar na gërëm gërëm goo xam ne yow da koy mën rek di ko def yàlla mi nga xam ne moo mën di joxe bés bu nekk sax day am lu mu jox tey boo léegi mu xañ ñaan ko mu xañ la waaw léegi yow nga bëgg kooku saxal ko ci rek wala bës bu koy def di ko def ba mu ah jamono dab ko moo xam dafa am jaboot wala dara defatu ko nga commencé ko xas xëy na arrêté ko nangam nangam te yow yaay gën a xam situation am hmm. ñu daal dama ne lépp lu na yàlla tax yow miy nangu sa teraanga na yàlla tax yamalal ki la jox ak ki la joxul yonent bi sallallahu dafa ni booy gërëm gërëmal ki la jox ak ki la joxul nit day màndu waaye toujours kii am moo tax nag nit ñi tam di dugg ci lu ñu mënul di ci pousser seen jëkkër ndax tam neexul nga nekk ak say nawle chaque jour ñuy xas sa jëkkër di la xas yow xam mm. nga loolu neexul wala duñu la tudd duñ la taas duñ la tudd duñ la taas fu suba ba xëy ñi ngi lay gaaral mm. nga nekk foo xam ne waroon fa nekk comme sa kër nga mujj dem ba xat fa mm. loolu nag muy indi nag léegi moo tax seetlu boo seetlu lu ci ëpp sax xale yi continué da ngay sëy kër goro mënu lu ma fa dem ndax fay daj dañuy préféré toog kër yaay bu weer ko jotee dañu ñëw def dajale li ñu dajale waaw boo ñëwee mu war a mën a am jëm mu xëppal la ko uti ki nga xam ne dafa nekk rek moom bu mu am doole ko ci waañ bi bu xorom manqué mu jënd bu kaani manqué mu jënd noonu lay demee noonu lay demee léegi nag nit ñi seen xel moo war a xalaat ci wàllu boobu mm-hmm. taa dañuy yaakaar ni ñi nekkul ci kër yi mm-hmm. ñooy ñi nekk ci biir kër yi ñooy ëpp lu ñuy joxe ka ñi fa nekkul waa day am mm-hmm. am na tam ñoo xam te dañ naan du ma ko yóbbal du ko yóbbu léegi bu ko defee nag lu koy def rek nga ne dinaa double def ko mais loolu dama yaakaar ne si complexe la si ñàkk ci la man daal euh, li may digle nit ki na def lu mu mën te bu koy def na ànd ak yéene bu sell te xam ne yàlla tax même bu dee ceebu géej gi laa lay toggal mhm. dama koy def ak yéene bu sell du dëgg jàpp ba sell jox ko sama borom mhm. ndax yàlla mooy fay yàlla njëkk def leen ma goro man awma ay ay ay ay sëru dënk aw ma ay boolu beñe mais am naa doom yu baax am naa yu baax du dëgg am na solo booy leb lebalal yàlla ndax yàlla moo am fay fay buy sax ba dàkk mais sànq yaa ngi lebal nit bés boo ko arrêté mhm. keneen ñëw ñu fàtte sa bos wax keneen wax keneen nga daal terewul nag teraanga moom saay boo ko mënee def ko rek ci mhm. gàttal tuuti rek léegi célibataire yi joxe suukar nag xale jigéen léegi moom ñoo gën dàq joxe ci ju gàttal rek ndax léegi waxtu bi doo <laughs> dab ñu <laughs> comme ñoom Coromba Ndiaye waa Petit Dé xale yëpp a ndugub suukaru ko jaaxle na ngeen ni naa de dégg naa de booy def stage moom ñi xam ne dañuy def stage hmm. dañuy góorgóorlu duñu tardé waxtu déedéet heure bu nekk ñi ngi ñëw waaye bu hmm. leen xasee ba embauché uh-huh. mu de waaw bu ko defee ñu commencé parce que wóolu defee ngay ñëw di wane teranga guddeeg bëccëg te yow takkaguñ la mm-hmm. bés bu ne ngay indi teranga est-ce na sax loolu pour lan parce que yaa ngi bëgg ku la takk te yàlla bu taxawaane du la takk du la takk de pertement gi nga gis ko daan investir si ci lu nekk hmm. mu xëy waaja teg ko fa dem takki keneen sa xool di tàng nag sama àq naka dalak sama nangam lama àq du ko dal parce que dangaa romb sa yaay waroon ko jox sa yaay hmm. wala say bàjjen wala say rakku yaay ñi ngi fi nga romb leen dem joxe ko keneen wala ñu la yar Mhm. nga romb leen dem joxe ko keneen kooku benn àq du ko topp bu la fi bàyyi tekk keneen di benn àq du ko topp yaa kenn forcé la ñu tàggatoo li ñu tëraloon ci waxtu jeex na <laughs> waaye xam li ñuy tàggatoo mooy di ñaaxaat suñu bopp mhm. di ñaax suñu mbokk ngi fi lañ ko fekk ku mu doonoon sa sago saay boo amee da ngay xëy di defal nit dafa neex mhm. yonent bi nee di xëy di defal yow al yadul ulya xayrun min yadis sufla loxo biy joxe moo gën loxo biy tàllal du dëgg ku mu doonoon sa sago foo toll da ngay joxe waaye nag yi yàlla yemalewul waaye nag du alal rek mooy joxe hmm. taseeg nit ree ko sax sarax la nuyu ko nuyu bu yiw sarax la leeral sa kanam ba bu la gisee ñemee la mën la wax soxlaam sarax la hmm. du dëgg loolu yëpp teraanga la loolu yëpp teraanga la moo tax ni ñu bàyyi ñi ñuy xarab leen xas yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ki ñëw ci yow baa nga taxaw ci mbooloo nga gërëm ko dem ko teral nee na yow yaa tedd hmm. waaye koo taxaw ci mbooloo ne da nga koy toroxal yow yaa torox ndax nit ki mu am rek lay joxe kon ñi nga xam te ni ñu ngi sëy si kër yi nga xam ne yàlla moo binde may yemalewul mm-hmm. ñu delloo ci suñu borom subhanahu wa taala lépp ñu ñuy def góor yi jàpp ci jëkk yi jàpp si mm-hmm. jàppalante am na ñoo xam ne sonaluñu seen seen jabaru càmmiñ te fu ñu leen toll ñu ngi leen di gërëm mm-hmm. loolu yëpp ndax rafetal nit ki li mu am rek lay joxe li ne ci moom rek lay joxe ngeen baal ñu àq asalaamaaleykum eh, ñu lay jaajëfal yow ne xat-xat yi bari na ak eh, koor geek jigéen ñi ku ne war a defar sa kër terewul nga wuy suñu ñu la ciy gërëm lu bari di la dig daje beneen yoon rek incha allah ñu waxtaane leneen di dig daje tamit ñi safoo leeru jamono beneen talaata ñu waxtaane beneen ponk bu soxal askan wi di jaajëfal li ñu jàpp ci émission ba mu sotti eh, ku ci mel ni Oustaz Assane Diouf du tàyyi ci coordination bi mooy réaliser lépp la Ndiaye Cheikh Tidiane ak euh, Aliou Ndiaye moom tamit euh, jàpp na ci Aline Diop Marga Rosa Ndiaye mi jàpp ci annonce bi jërë ngeen jëf ba beneen yoon beneen talaata ñu ñëwaat fii waxtaane leneen alxames ji di fukki fan ci weer wi seen émission diine ak jamono dina amalab njàngat bu yaatu ci gouvernement bu bees bi ci njiital Mouhamed Abdoulaye Dione folleekuk ña ñàkk seen gox ci élection locale yi ngir jàngat tomba yi ak yu ni mel Ousmane Sène dina dalal ci seen émission diine ak jamono ay kàngaam yu seen xam-xam màcc ci wàll wi